jërë ngeen jëf yéen ñi toog di nu bàyyi xel ci Source A TV ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen siyaar di leen jox seen uh, wàccuwaay dañ ko door rek nag li gën a fës ci bopp yéene kay dañ koy door rek Source A uh, moom nag daa xëy fësal ci xëtamu njëkk nag uh, li nga xam ni moo jëm ci wàllu déguerpissement yi ñi nga xam ne ñooy marchands ambulants yi nag ñoom seen ñëpp yaa ngay saxaar waaw loolu yéene kay bi wax ne les oreilles ont bourre donné loolu yi nag la yéene kay bi daal di biral ci li gën a fës ci yéene kayam waaye nag leefu yéene kay dafa ñëw ci président Bougane Gueye Dany gëm sa bopp moom it ñëw ci li nga xam ni euh, moom mooy président Bassirou Diomaye jaxaar fay ak euh, Ousmane Sonko dal na seen kaw gannaaw téeméeri euh, fan yi nu def ci bopp nguur gi loolu nag la yéenekaay bi ñëw wax direct news nag dafa ñëw ni Sénégal bokkagul ci membre yi nga xam ni mooy l'OPEP l'OPEP e nag boo ko déggee mooy organisation des pays exportateurs de pétrole ba léegi Sénégal bokkagul ci ñooñee loolu la yéenekaay bi daal di ñëw euh, fësal ci xëtam tribune yéene kaay nag dafa ñëw euh, gannaaw nag euh, fan yi nga xam ne def na ko fi gannaaw it immigration bi nga xam ni gis na ne mi ngi jàbbaa jolle président Bougane Gueye Dany nag daa ñëw nag daal di dal ci kaw ki nga xam ni moom mooy président Bassirou Diomaye Diakhar Faye daal la joxoñ baaraamu tuuma ne lu ju ji njàkk mooma njàkk las yéene kaay dafa ñëw ci xëtamu njëkk nag ci ki nga xam ne moom mooy Amadou Ba Amadou Ba nag nekkoon na fi euh, candidat moom it nag euh, ñëw ci ñi nga xam ne moom mooy euh, xale yi des ci géej gi loolu Amadou ñëw wax daal di nag joxoñ baaraamu tuuma ki nga xam mooy régime bi ak ki nga xam ne mooy Bassirou Diomaye Diakhar Faye mi ngi noonu le Dakar waa moom it dafa ñëw ci yi nga xam ne mooy tension ba am foofee ca CEDEAO ak a ki nga xam ne nag moom mooy. président Bassirou Diomaye Diakhar Faye moom la ñu jël nag mu doon facilitateur bi loolu nag la euh, le Dakar waa daal di fésal ci xët mu njëkk le regard dafa ñëw ci euh, ki nga xam ne mooy président euh, Bougane Gueye Dany ci li nga xam ne moom mooy fan yi xam ni nguur gi dafa gum noonu ko fi nguur gi yes gi le président Bougane Gueye Dany nag dal na ci seen kaw loolu la yéene bi daal di ñëw wax les échos yéene kaay dafa ñëwaat ci bugan ne Bougane tire sur les couples Diomaye et Sonko ak lu mën a xew daal président Bougane Gueye Dany mayu leen dara le quotidien yéen kaay moom it dafa ñëw euh, ci li nga xam ni moom mooy euh, foofee ci Kafountine Kafountine le les filets mi ngi noonu kon nag nañ ko baaxeel bu baax a baax euh, jëm ci nga xam moom mooy vague d'agression contre les femmes ñi nga xam ni ñu koy teg ci jigéen ñi mu doon lu métti métti loo xam ni ci yéemi na le quotidien moo ci daal di ñëw Vox Populi nag dafa ñëw ci li nga xam ne mooy téeméeri fan yi nga xam ni eh, nguur gi def na ko fi Abdou Latif Coulibaly nag ñëw na ci nee na même bu dee deux cent jours même bu dee eh, ñatt téeméeri eh, fanit li nga xam ne moom mooy promesse yi nga xam ne digge yi duñ ko matale lii moom ki nga xam ne mooy Vox Populi daal di ñëw ci xëtam mu njëkk Walf Quotidien mi dafa ñëw ci lu jëm ci le franc CFA et la création de l'AES mi ngi noonu Euh, question autour d'une dévaluation loolu nag la Walfu Quotidien daal di ñëw fësal ci xëta mu njëkk bés bi le jour dafa ñëw ci euh, le tabac ba la drogue vaccinale mu doon loo xam ni drogue bu xam ni bu yéeme la boo xam ni te mi ngi faagaagal doy na waax kon nag bés bi le jour daal na ci ñëw ci lu mu gën a yaatoo l'observateur dafa ñëw ci enquête sur l'endettement des Sénégalais bor bi bor bi daal la dikk l'observateur ñëw na ci ci nu mu euh, gën a yaatoo ci xët mu njëkk mi ngi noonu euh, te mooy yéen kay dafa ñëw ci li nga xam ni euh, moom moo jëm ci wàllu taw bu njëkk bi nga xam ni wàcc na fii ci réew mi ne nag am na ñaar fukki mesure ak ñaar yoo xam ni jëloon nañu ko te loolee nag France daal ne xëddeen dafa mel nag taw bi. mi ngi koy bëgg a faagaagal tribune sport dafa ñëw nag ci diggante Modou Lo ak nga xam ne mooy Siteu lance des tillee mi ngi noonu loolu nag la yéenekaay bi daal di ñëw nag ostitili loolu nag la yéenekaay bi wax euh, donc ci euh, xëta mu njëkk en tout cas euh, loolu nag moo gën a fës ci di gën a fës ci bopp yéenekaay yi waa ce soir ñu ngi leen di béggee bu baax lañ jox seen wàccuwaay ba ëllëg ak jàmm